choix am gii nga xam ne def na ko ci bun jon moom Sall daal dina koy sécuriser ba maar dey Italie yéen kaay bi de média bi naan man candidat Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle bi laa leen di tegal nii de moom Sall démb ñoom ñëpp woon na leen ca palais présidentiel ba laas ne ko kaay lu mat fukki ci ay candidat ñoo fa ñëw nag ne saraax bokk ci géem bi daal dina ñoom tamit dañuy daal di bokk ci élection yi direct news ne ma waaye naka la Mansour fay dugg ca saal ba président Macky Sall ne ko ma sóoraloo fiy wut mu ne ko candidat laa mu ne ko déet mënta ne Mansour Faye kay demal demal toog ko yow sa candidature maa am sañ-sañ ci yow maa koy daal di fuqarti tribune yéen a kaay naan man président Macky Sall day mani la ca mu nekkoon jël bun jon tabu ko def ko bal ne ko ma sóoraloo fi wut mu ne ko candidat laa mu ne ko déet mënta ne Mansour Faye kay demal xaar demal yow sa am sañ-sañ ci yow maa koy daal di fuqarti tribune yéen a naan man président Macky Sall day mani la ca ba mu nekkoon jël bun jon tabu ko def ko candidat am jógu fa am nag charte goo xam ne sax signéloo na ko Abdoulaye Daouda Diallo signéloo àndandoo ko Amadou Ba ak ñeneen ngir daal bu tànnee moom Sall ngaari lam tooro bur géde ba nuppi kenn du nag indi fépp ci biir parti bi Aly Ngouille Ndiaye moom dikkul dafa mel ni nag wiiri wiiri moom it la nekkeeg Sall di nëbb daal ab poom maam booy jaawane 2024 ku ma teree samp samam ndënd maam booy ne kii ci boppam laa gisul moom président Macky Sall ci l'observateur naan leen fi ne daal jafe-jafe ngir tabb moom laa am ndax fukk ak benn ci candidat ñoo ni jamet sama kanam jaaxal ngeen ma nag yéen waa Benno Bokk Yaakaar président Macky sàll ne leen tee ñoo def ay wat ci suñu biir gaa yi ne ko dafa jamp xaju fa yéene kaay bi ne ma mataax siisee ba jafe-jafe ya tàmbalee am la génn saal ba ne président Macky Sall jéggal ma ko waaye duma ma candidat te moo ne day mataar siisee mii yéene kaay bi naan man Moustapha Niass xool na ko déglu na ko ñu woolu ko ca pale ba waaye mataar ma ne la ba mu gisee gaa yi sakkan dafa ne bàyyi naa du ma candidat maam booy jaawoo ne président Macky Sall sama candidature bi aar sab jëfa aarit say liggéey ngir ña nga ne fi bu ñu faloo mën nañ def à tout moment écarté yéene kaay fi diirub ñetti fan ci la président Macky Sall daal war a xoolee l'enquête quotidien naan kon lu muy xool fi mu ne daal mbir yi daal dinay jafe lool ci président Macky Sall woo na renfort nag diggante Aminata Mbengue Ndiaye ak Moustapha Niasse waaye dafa mel ni mbir yi dafa gën a dëgër ci président Macky Sall ñëpp bëgg bokk le témoin naan man moo taxit kor Marème Faye Sall démb daal amul génn ak dogal goo xam ne jël na ko ci wàllu candidature bi moom Sall daf ne leen dem leen ñu daal di xoolaat Walf Quotidien naan man Abdou Sall nag dafa lañ ci ba pare ne cell ak moom tribune yéen a kaay naan man ma ne la bun la président Macky Sall ab am bun la bun jonn la président Macky Sall tabb ngir mu daal di koy wuutu gannaaw loolu dil yaa ngi mel ni tulleeg maa la ci làngu politique bi ci réewum Sénégal le mandat yéen kaay naan man ci week-end dil wa nga xam ne dox na diggante président makki Sall Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall day mën naa mat ya nga xam ne nag moom président Macky Sall moo leen tuumaal ci réew mi tëj leen ci réew mi génnee ñii gàddaayloo ñii ñoom la Sall bëgg setalaat ci réew mi ñu bokkaat ci làngu politique gi waa grand place man xam nga lii sax daanaka teg injustice askanuk réewum Sénégal la Sénégal nag nar a dugg ci injustice ci wàllu koppar goo xam ne daal di fësal ay candidat moo ko nar a waral bu ñu jéggalee ñun Sénégal ñaar ñii nga xam ne mooy Khalifa Babacar Sall Karim sa Wade nga xam ne nag dañ leen jàppee ay délit financier Sénégal nag nar a dugal ab injustice financière ci biir nag nañuy tëggee élection ci réew mi yee salaat leen ragg leen ban set dugalaat leen ci langu politique bi maanaam ci géem bi day tax nag ay laaj daal di sampu ci nag ka nga xam ne war nañ koo dugal ci système électoral bi ni muy doxee ban nit la war a doon degré taxam fu mu war a toll waaye tam koppar gi dëgg-dëgg ban rôle la am ci politique réewum Sénégal nees doxee yéen kaay bi naan maan diggante Karim Meïssa Wade Khalifa Ababacar Sall ak président Macky Sall juboo day mën na ca am waaye nag warta doon benn yoon benn prétexte ngir ñu taqal dëgg-dëgg élection nees ko tëggee ci réew mi waaye daal ñan ñoo war a doon candidat ak ñan ñoo ko warta doon ci réew mi réew mi quotidien naan maan ak lu mën a am politique nii la demee Abbas Fall boobu moytuwul àllarba ji ñàkk fauteuil premier adjoint au maire ci ville bu Ndakaaru Walf quotidien naan maan digganteem ak Barthélémy ci boppam moo neexagul Barthélemy Dias nag fas koo yéene rocc fa yàllaahu libération yéene kaay nan maan ab attentat la ñu fas ko yéene nag jébbal Barthélemy Dias waxtu woowu nañu Ousmane Sonko wéy di dund ma docteur Toussaint Manga ak Bentalab Sow ña nga ca kaso ba ñu jël seen dossier daal di criminaliser Jamil Sané may mun a jee am retour de parquet Antoine Diome daal di dëggal seeyalu Pastef ga Birame Souleye Diop ni ki démb sûreté urbaine daal di ko koy leeral manifestation yi waxtu woowu di wéy ca Ziguinchor Moustapha Badji ñu daal di koy jébbal boromam ni ki démb ma démb Mamadou Diatta aljuma ji lañ ko war a jébbal boromam l'info yéene kaay naan maan gouvernement ga en tout cas ma ngay wéy di attaqué waa Pastef moom Abdou Karim Fofana ci Vox Populi naan xam nga woote xeex ak fipp ci réew mi li ko Pastef def kenn musu koo def ci langue politique gi ci réewum Sénégal ba mu sosoo ak tey faatu bakkan yi fi am ndax politique mësta am Abdou Karim Fofana naan ñu war a bàyyi ñii ñu jël réew mi di salfaañe le point yéene kaay naan en tout cas attentat bu cocktail Molotov ba nga xam ne am na ca Yara Benno Bokk Yaakaar ma ngi koy naqarlu yéene kaay bi naan maan ñaar ñaar nit ñoo ci ñàkk seen bakkan bennoo bokk yaakaar ma ne la di jaale seeni mbokk di xam le ni am na ñoo xam ne rax nañu ci réew mi buñ ci jógulee mbaa ñu wax ci day làmbaay dina ñaaw l'observateur naan maan ña nga xam ni ñoo faatu fi mu ne day mën nañ leen identifier ñaari xale yu jigéen ya dëkk fii ci Medina ak juróom ña nga xam ne am nañ ay gaañu gaañu turbine yéen kaay naan kon xel yi nëx na ba nuppi de ñaari nit ñi nga xam ne ñoo faatu ma ni la xel yi nëx nañ ci ba nuppi diggante dalal jàmm hôpital bu Caaroy ak CTO ñan ñoo téye blessé yi l'observateur naan kon xanaa hôpital bu Caaroy kay leeral na ni ñoo ko téye woon tribune yéene kaay ne ko ma dikkaat ma la baayu xale bii di Mamadou Yero Diallo mu ne ñaar ñi faatu ay doomam lañ wax ji daal daal dinay am ay jaxasoo 24 heures yéene kaay naan kon réew jaxasoo rek xam nga boo demee ci réew yu ñu wër lu ci mel ni Mali lu ci mel ni Guinée lu ci mel ni Burkina lu ci mel ni Niger gi nga xam ne Aïssata Tall Sall démb nee na l'armée bu Sénégal dina dem ngir wàllu leen bu ñu amee tiitaange ci seen réew Sénégal nag ñëw fekk si réew yooye fi mu ne réew mi mel ni sabar gu tas askan wi saa bu nu yeewu yeewoo tiitaange la ñuy xëyee moom la ñuy gontoo fanaanoo ko ku ci nekk yaa ngi njort à tout lenn mën na laa dal ci mim réew jaxasoo gi mel ni tulleeg màlle buñ demee ba réew mi toll fii te politique dong waral ko war nañ xoolaat suñu bopp wala l'indépendant yéen kaay naan maan en tout cas société civile moom daal dina ñuy jor lépp li nga xam ne xew na ci réew mi président Macky Sall nee nañ deltu ginnaaw ci wàlluk démocratie Sall deltu ginnaaw ci wàlluk liberté gi Sall nañuy caxat-caxatee àq ak yelleefuk doomu aadama yi Sall la jàpp ji nga xam ne mi ngi sakkan ci réewum Sénégal Pastef gi président Macky Sall la waa RADDHO Ligue sénégalaise bu droits humains article 19 ak Amnesty International daal dina nuy nag am njàqare ci li nga xam ni moo xew fi mu ne ci réewum Sénégal deltu ginnaaw ci démocratie boo xam ni maar dey taali ñuy caxat-caxatee sañ-sañu askanuk réewum Sénégal di jël ay siège parti di ko barricade tëj ba kenn mënta dugg di caxat-caxatee la nga xam ni àdduna wërngal këpp ñoo ko ànd xaati mënoo ko di tere ay dajaloo ci réew mi di jàpp ay journaliste di jàpp ay activiste ci kaso bi Sénégal politique ñu leen di jàpp di tëj ci kaso di jël ay parti politique di seeyal ñii sàmm ak ak yelleefuk doomu aadama di fàttali président Macky Sall naan koon Sénégal gii cartam dafa garantir nag sénégalais yi ci boppam am ak ci réew mii mu doon ci wàllu politique wala it booloo ci association te loolee na dañ koo war a sàmmal askan wi respecté ko ñii sàmm ak ak doomu aadama naan la xew sa yaraax doy na ci firnde ñi ngi naqar lu bakkan yi ca am di sàkku ci askanuk Sénégal ñu àndu dal te di fàttali président Macky Sall naan koon jàmm Sénégal mi mi ngi ciy loxoom libération yéen kaay naan man jàpp gi dafa metti ba amidia mati saar ñang ak faala fleur ña nga ca grève de la faim ca kaso camp ba yéen kaay bi naan man lu toll ci fukk ciy soxna ñoom it ñoo soobu ci grève de la faim ngir jàppale ci Ousmane Sonko waaye tam jàpp gi nga xam ne ñu ngi leen koy jàpp te mu metti lool te teguñu ko fenn tribune sport naan man lu mu metti metti jàppale ni Sénégal qualifié na ci final afro basket ba ni ki démb la Sénégal daal di daan Mali tribune yéen kaay naan ñi ca xat ca xatee ñu ngi muy xale ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp kenn ki